Aïcha mi fidèle internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziar contentement ak mbégte la ñuy am chaque jour di àndaat ak yéen ci li nga xamante ni moo di seen émission entretien di leen jaajëfal bu baax a baax suñu mbokk internet partout dans le monde rawatina yéen yi nga xamante ne yéen a nekk ci diaspora bi chaque jour ñuy gis euh, kóolute ak mbég mbëggeel bi nga xamante ne am ngeen ko ci suñuy euh, programme moo tax cette fois ci ñu génnee encore une fois ci beneen euh, facette ni ñu koy defee saa su nekk rek émission entretien tey feneen la génnee ñu fas yéene waxtaan ci wàllu mbay wàllu agriculture mu doon benn facteur boo xam ne ne dafa am solo lol ci wàllum réew rawatina li nga xamanteni développement euh, bu bout euh, bobé ba taxna tay ñi ngi euh, fi dalal ki nga donc moy Mor Diouf Mor Diouf itam buñ ko waxé mi ngi yëngu ci li nga xamanteni moy syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal tay mu fàccee né fram fàccee ay ponk yu am solo jëmele ko ci walum agriculture seen bébét way itam ñom liñ ci jankontel mu don ay ay yo xamanteni ça date depuis longtemps dina ci andi ay éclaircissement yu am am solo mbokk internet bu ngeen taxir lo rek ñu bàyyi mo mu nuyo bu ko defé rek ñu gëna a ci waxtaan bi Mor ñu ngi lay ziar. wa ñu ngi lay delloo ziar soxna Aysatu mm-hmm. di nuyu mbokku internet yëpp. Mm-hmm. di nuyu wa Sénégal. Mm-hmm. di nuyu suñu mbokku baykat yi. di nuyu képp kuy liggéey ministère de l'agriculture et de l' équipement rural. di contane ci dalal bi ñu dalal fii ci émission bi nga xamante ni mooy émission bu siiw boobu. Euh, di contane bu baax. ci li ñuy dalal. macha allah di déglu esu yi nga laaj mi pour ñu indi ay leeral ci say tontu.

suis Sintas, mm-hmm. du syndicat national des techniciens et travailleurs mm-hmm. de l'agriculture du Sénégal euh, syndicat la boo xamante ni agent yi nga xamante ni ministère de l'agriculture mm-hmm. muy ingénieur agronome di technicien agricole di informaticien di planificateur euh, di économiste ñoom ñoo dajale seen doole les ni liggéeykat bu nekk fu mu war na am ñoo xamante ne ñoo koy taxaw ngir seeni jàmbat mhm. seen i jafe-jafe ñu koy taataan mhm. di ko jébal kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi mhm. ak kilifa yi nga xamante ni ñoo ñoo ŋànk agriculture pour ñu mën ci indi ay saafara mais nga baal ma rek nga baal ma rek bala maa dugg ci waxtaan wi parce que tey bi ma yegsi ci seen studio dañu jot benn information bu nga xamante ni. Mhm. xëy na dinañ ko yaatal ci kanam. effectivement mais mu nekk information boo xamante ni bu doy waar la. Mhm. parce que bi may dugg ci euh, studio bi. Mhm. lañ may xamal ni suñu benn agent bu tudd Moussa comment il s'appelle encore. Euh, Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye di agent technique nekk ci laboratoire bu Kaolack. dañ ko jébbal réquisition. muy këyit goo xamante ni mooy wane ni réquisition boobu euh, gouverneur bu Kaolack jébal ko ko muy këyit goo xamante ni mooy wane ni fi mu toll nii agent boobu bis ni ki tey euh, amatul sañ-sañ grève maanaam daal dañ koy forcer pour mu dem liggéey malgré que syndicat bi mu bokk mhm. dafa jël décrété ni day grève. d'accord donc loolu nag. Mhm. mooy rek li nga xamante ni mooy le professeur Moussa balde mhm. dynamique bi mu nekk yoon wi mu nekk maanaam wàccu ci. Mhm. maanaam moom dafa jël li nga xamante ni musta am agriculture ba agriculture di am ba tey. ministre yi fi jaar yëpp. jamonoy Senghor jaar ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade. amul benn yoon boo xamante ni travailleur agriculture mës nañ koo réquisitionné. ci ayam la mës a amee. manam li tubaab di wax c'est inédit. Mhm. loolu nag nekk lu doy waar. alors su ma la déggee si euh, li nga xamante ne mooy bataaxal bi nga jàllale léegi day mel ne sous forme d'exploitation lañ leen di dundaloo. waaw xëy na duñ ko mën a tuddee noonu sax waaye euh, niñ koy mën a tuddee mooy daal. Mhm. delloo nañu ci mbuumug njaam. Mhm. ndaxte liggéeykat bu nekk nekk ci fonction publique. parce que foofu tamit ma leeral ni ñun ay fonctionnaires de l'État lañu. manam tay pour nga nek travers ministère de l'agriculture da ngay jang mm -hmm. ba am sa baccalauréat série scientifique. mm -hmm. bo amé baccalauréat nga def concours. d'accord bo defee concours. mm -hmm. dem jang li ñuy wax agronomie manam li nga xamanteni mo jëm ci walu mbay. mm -hmm. ñu jox la diplôme manam nga def bac plus 6. mm -hmm. bo génné ñu ngi lay loger ci li ñuy wax hiérarchie A1 kon da ngay xamni fofu ñafa nek fa nekk. Mhm. ñu jang lañ. mm -hmm. ñu am ay diplôme lañ. ñu mhm. am xam-xam lañ. Mhm. léegi nag travailleur boo gis muy yaaxam ci fonction publique nga nekk maanaam ci nguur gi ngay liggéey wala ci privé bi nga nekk maanaam dañ lay liggéeyloo. Mhm. yoon moo la jox droit nga mën a li ñuy wax bokk ci syndicat boo bokkee ci syndicat aussi. syndicat bi bu fekkente ni jël na décision ni ñun dañuy grève. wala dañuy banque suñu loxo ci wàllu liggéey bi. Mhm. kon yow am nga sañ-sañu en tant que travailleur bi nga xamante ni da ngaa bokk ci syndicat boobu nga jëmmal doxal loolu xamante ni syndicat bi décidé na ko. Mhm. léegi nag yoon nag may na état muy réquisitionner évidement mais réquisition. Mhm. loolu képp ku ko def mooy aveu d'échec la parce que li tax ma wax ko. démb rek am na benn émission boo xamante ni mu ngi amoon 2STV. mu yónni fa ndawam mu wax ni. Mhm. ñun suñu grève bi ñuy grève. Mhm. amul benn jeexital maanaam amul benn impact. Mhm. ci fonctionnement ministère bi. waaye bu fekkente ne yow da ni. ñun kat suñu grève amul benn jeexital. maanaam euh, ñu ngi doxal. maanaam mise en place yi. mu ngi koy def mise en place boo ko déggee mooy jiw yi nga xamante ne ñu ngi koy joxe. ci mbay mi ñu ngi koy def normalement. amul benn jafe-jafe lépp waaw loolu la wax kon. lan ngay jébbale ay agent ab badaaxal maanaam réquisition pour mhm. wax leen ni nañ liggéey par la force mhm. xam nga loolu contradiction la dëgg la parce que bu fekkente ne woon ñun li ñuy def amul mhm. benn jeexital ci ministère bi kon du jël kayit di réquisitionné te kii benn la rek xam naa ni fii ki suba fii ak altine dina joxaat ñeneen ay réquisition loolu nag li muy tekki force nit mu liggéey moom mooy rek delloo ko ci mbuumu njaam. est-ce que loolu waaw parce que suñuy maam yi xam nañ ni bañ leen daan liggéeyloo. Mhm. amuñu woon sañ-sañ naan dañuy grève wala mhm. dañuy noppalu. effectivement te loolu nag. Mhm. dañ koy déplorer. ma wax rek ni njëkkewul réquisition yi. ndaxte affecté woon na fi suñu agent. ñi nga xamante ni ñoo ŋànk euh, syndicat bi.

Euh, dafa bëri ay jafe-jafe. Mhm. mais tey dinaa la leeralal. li tax mbay mi am jafe-jafe. Mhm. te loolu xëy na euh, maa ngi invité aussi seen mbokk journaliste yi. Mhm. ñu gën a joxaat kàddu gi maanaam ñiy liggéey ci mbay mi. pour ñu xamal leen lan mooy jafe-jafe mbay mi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. que euh, sa émission bi li tax ma gën ko rafetlu. mooy ni fi nga ko defee la parce que bu ñu waxee nawet rek ci Sénégal. Euh, muy taw. dëgg daanaka xel day dem ci mbay. effectivement te fi ñu toll nii tembe. Mm-hmm. Mm-hmm. mën nañu wax ni nawet tàmbale na. effectivement te kon mbay tàmbale na. Mm-hmm. ndaxte agriculture Sénégal lu ci ëpp li ñu wax agriculture pluvial la maanaam dafa dépendre ci mbay. ci mbay dëgg euh, léegi nag agriculture. Euh, am na ci sama émission ba ma defoon leeraloon naa solo agriculture mooy lan mbay. ma tënkoon ko ci ñeenti fonction yi nga xamante ne agriculture am na ko xëy na dama koy gàttal bi passé bi pa mhm. ndaxte am na yeneen yoo xamante ni moom laa ko bëgg a toftal ci mhm. moom muy ni agriculture mhm. mooy li nga xamante ni dafa am fonction maanaam dundal askan moo war a nourrir askan askan boo jël mbay moo leen war a dundal mais agriculture également boo jëlee Sénégal téeméeri nit yoo jël juróom-ñaar fukki yëpp ñu ngi yëngu ci mbay kon xam nga juróom-ñaar fukki yëpp mhm. ñu ngi yaakaar ci mbay pour seen koom-koom ak seen liggéey kon agriculture day joxe mhm. am xëy mais day joxe tamit koom-koom mhm. mais sànq yaa ngi koy wax bu ñu fexe woon ba tey suñu soble bi ñuy bay dañ koy jaay bitim réew boo ko jaayee loolu daf lay jox li ñuy wax ay devises day permettre Sénégal mu am ay devises parce que xam nañ ni économie mondiale ci ay devises lay jox parce que essence marché mondial bi ci devise nga koy defe mhm. donc loolu am na solo mais am na leneen loo xamante ne tamit mooy wane rek ni agriculture dafa am solo gis nga boo jëlee tey au niveau africain mhm. euh, en mille un dañu teg benn plan bu ñuy wax NEPAD mhm. si vous vous si NEPAD voilà NEPAD boobu dafa am benn pàcc boo xamante ni daf ko jox vole agriculture pour xamale rek ni agriculture dafa am njariñ am doole programme boobu muy programme africain boobu mu ngi tudd programme de développement de l' programme développement de détaillé mhm. de l' agriculture africaine mhm. muy PDDA gis nga programme boobu bi ñu ko tëggee mhm. au niveau régional parce que Sénégal mu ngi bokk ci CEDEAO dañu tëgg beneen programme boo xamante ni mooy dajale CEDEAO yépp ñu am benn programme agricole bu ñu wax ECOWAP gis nga bokk na ci engagement yi ñu jël ci ECOWAP boobu dañu wax ni dëkk bi nga xamante ni bokk nga ci CEDEAO na nga jël programme régional boobu nga jëmmal ko ci sa réew. Mhm. ci la Sénégal ak yeneen dëkk yëpp teg lu ñuy wax PENA muy programme national d'investissement agricole. Mhm. mi nga xamante ni mooy programme bi nga xamante ni mooy tënk mbay mi mais bu ñuy wax mbay nag. Mhm. mooy mbay l'agriculture au sens large. maanaam mbay mi nga xamante ni day boole mbay. boole sàmm. boole napp. ak boole tamit environnement. lan mooy problème mu ceeb bi. voilà lu tax fii Sénégal ñun mënuñu lekk ceeb bi du ma ne ñëpp nag. mais boo xoolee mën ne 70 pour cent. mënuñu ko waaw ma daaneel rek ma daaneel loolu loolu xëy na dinañ ci ñëw. Mhm. mais li gën a am solo. Mhm. ma développé ci loolu. Mhm. léegi bi Sénégal tëggee programme boobu dañoo sas. dëkk yi nga xamante ne dañu bokk ci CEDEAO. ñu jël 10 pour cent ci seen budget. maanaam budget Sénégal boo ko jëlee 10 pour cent yëpp ñu jawleel ko mbay mi. ñu santaat leen aussi li ñu wax le commerce intra-régional maanaam jënd ak jaay bi dox ci réew yi. muy Sénégal ak Bénin Burkina Faso ñu fexe ba nga xamante ne dañ koy tip doubler wala ñu tripler ko. donc loolu xam nga dafa am solo. léegi Sénégal ci boppam bi mu defee loolu ba pare dafa tëgg programme bu ñu wax PRACAS. parce que bi Macky sàll indee PSE. Mhm. pour ñu jël jëmmal PSE boobu ci ci wàllum agriculture dañu tëgg braquage. Mhm. mais gis nga programme yooyu yëpp ma la limal fii boo koy tëgg. Mhm. man planificateur laa. booy tëgg programme da ngay def lu ñuy wax analyse SWOT. mooy force faiblesse. contrainte ak opportunité. benn tableau dynamique lay doon boobu day am quatre parties. Mhm. nga jël secteur bi nga jàpp nga càmbar ko xool lan mooy force yi. Mhm. lan mooy faiblesse yi. Mhm. lan mooy contrainte yi lan mooy opportunité yi. mais programme yooyu yëpp bi ñu ko càmbaree dañu gis ni contrainte principale bi ngay am. pour que agriculture sénégalaise bi développé. mooy ni ressources humaines yi maanaam parce que boo tëggee programme secteur boo jël. nga tëgg programme pour doxal ko. il faut nga am ay nit. Mm-hmm. yoo xamante ni ñoo la koy doxalal ma jox la benn exemple. Mm-hmm. xam nga tey sa studio bi macha allah na. Mm-hmm. mais caméra yi ñu ngi fi. taal nañ lamp et tout mais yow boo fi toogul nii. def émission du dem. daa may manque moom. yow pour nga def ko aussi. il faut ñu motiver la. léegi nag document yooyu yépp dañoo wane ni. agriculture pour ñu doxal politique agricole yi manam lu jëm ci ceeb beeg. Mhm. lu jëm ci mhm. lu mu doon. pour mu dox il faut que nous ñu jox leen ay salaires yu baax. Mhm. ak ak conditions malheureusement ce amul. le melni conditions yu salaire yu voilà gis nga de planification yi. ak document d'évaluation yi ministère agriculture l'Agriculture, muy lu ñu DPPD document de programmation pluriannuelle des dépenses publiques. Mm -hmm. des dépenses muy revue conjointe. Mhm. muy revue annuelle. bu mu mhm. ci mën di doon ak programme bo mën di jël li ñuy njëkk a bu ñu def seen cadre logique yi maanaam les contraintes. Mhm. dañuy wane ne contrainte principale bi mooy ni agriculture ña fa nekk kenn bëggu. maanaam ña ngay bëgg a dem. gisuñu seen bopp. gisuñu seen bopp. te ñeneen ñi nga xamante ni tamit. bëgg nañ leen faa yóbbu kenn bëggu faa dem. d'accord loolu nag tànk réglé wuñ ko. Mhm. mën nañu wax ni agriculture ci day sooxe rek. ay ci day sooxe donc wàllum ceeb bi lan moo tax sénégalais yu bari mënuñu ko lekk. voilà ceeb bi moom xam naa ne euh, xam naa ni ceeb bi moom ceeb bi moom boo bëggee dégg-dégg. Mhm. Euh, état bi xëy na def na ci ay jéego yu bëree bëri. yow mën nga lekk ceebu mbay. waaw ceebu mbay euh, mën nañ reconnaître ni changé na quand même. changé na waaw changé na parce que. li taxoon sénégal yi xëy na mooy ci préparation bi jigéen dañuy wax ni dafa bëri ndox euh, buñ koy togg mais loolu tamit di jaajëfal suñu baykat yi nga xamante ne ñooy jëngu ci wàllu ceeb def nañ ci effort bu bëree bëri état tamit jàppale na leen ci pour que vraiment qualité bi gën a améliorer parce que saak yi da daan bëri ay déchets et tout ça loolu yëpp liggéey nañ ci bu baax a baax euh, évidemment maintenant amna ba nga xamanteni programme bima la don tuddal sank muy mhm. PRACAS mhm. objectif bima am moy ñu fexé ba nga xamanteni Sénégal mhm. kenn dootu fi jëndé ciép bitim réew mais lool nak liggéey bu en tout cas lool du yomb dé wa loi du yomb mais lima la wax ni rek la manam yombul mais lu mëna nek la li tax man ni mën naa nekk mooy techniciens yi nga xamanteni ño nek agriculture programme yi ñu tëgg boo ko xoolee bu ñu leen yi jox Mm-hmm. yëpp fullaal leen faydaal leen. Mm-hmm. defe naa ni loolu yëpp ngay wax ni. bu ñu defoon li war ci ñoom. waaw ay ci am na solo xam naa li ñu des ci waxtu bareetul donc dañuy ñëw rek ci wàllum statistique bi euh, bu ñu doon def xayma statistique annuel bi yow mi nga xam ne danga nga ciy yëngu lool nga def la ci benn résumé bu ndaw a euh, chaque année rek li nga xamante ne mooy mbayu Sénégal ndax am na évolution. waaw boo ko nattee ci wàllu production maanaam xayma. Mm-hmm. li ñu bayoon daaw ak li bayoon at yi. da ngay da wax ni mhm. def nañ ay jéego. Mhm. évidemment mais jéego yi mënoon nañ ko gën a baral. d'accord euh, nga baal ma rek ma revenir. Mhm. ci li nga xamante ni moo gën a tax sax ñu tenir émission bi. muy ni jafe-jafe yi nga xamante ni ñun travailleur agriculture foofu la ñuy jeexalee si jafe-jafe yi la ñuy jeexalee incha allah. voilà merci beaucoup. Euh, boo ko nattee en tout cas ci wàllu ceeb bi. ci wàllu gerte gi. ci walu dugub bi. Mhm. xayma yi nga xamante ni euh, direction de l' analyse la prévision et des statistiques agricoles mu ngi koy génne chaque année. Mhm. wane na ni Sénégal mu ngi def ay jéego ci wàllu production. Mhm. mais évidemment war nañ koo yokk. surtout ba nga xamante ni production yi dina gën a yokk. mais leneen li nga xamante ne tamit moo ëpp solo. mooy production yooyu ñuy wax acteurs yi ko seq. muy état muy fonctionnaire yi nga xamante ni ñoo fay liggéey muy ñun. muy producteurs yi euh, muy baykat yi muy ñëpp. Mm-hmm. bu ñu génnee benn chiffre ni lii kat moom lañ bay ci dugub. Mm-hmm. lii lañ bay ci gerte lii lañ bay ci ceeb. Mm-hmm. kenn bañ koo contesté te loolu mun na nekk. nañ jox rek liggéeykat yi. seen wàll. ak maanaam nañ leen jox li nga xamante ni moom lañ moom. bu ñu leen joxee li ñu leen moom ci lu jëm ci statistiques yooyu. defe naa ne fii at statistique Sénégal kenn dootu ko contesté. parce que statisticiens yi nga xamante ni. Mhm. ñoo yor lu jëm ci wàllu enquête agricole boobu. Mhm. c'est des statisticiens yoo xamante ne xam nañ seen liggéey. Mhm. xarañ nañ te xarala nañ. li ci des rek mooy. ñu jox leen seen cër. Mm-hmm. jox leen seen gëdd. Mm-hmm. bañ mën a def liggéey bi te du am benn contestation. Aïcha am na solo lool fi nga xamante ne fa la daanelee muy li nga xamante ne mooy wàllu ak yelleef yaakaar naa ni doomu aadama bu nekk ca la ngay yëngu ca la ngay xëy di ci am astut pour nga xam ne mu ngay yóbbul sa njaboot boo ci gisutulee sa bopp day dem ba dafay tageteem ba moom ñu ci ëpp moo leen dal tey jii yan jafe-jafe ngeen di rencontrer de telle sorte que tey jii ñu ci ëpp ci yéen mën nañ wax ne tey jii bëggatuñu sax yëngu ci li nga xamante ne mooy wàllum agriculture. voilà merci beaucoup maa ngi lay maa ngi lay gërëm. Mm-hmm. ci question bi nga posé parce que question bi nga xamante ni bu am solo la. Mm-hmm. mën nañ ni sax loolu mooy ali kalaj gi. effectivement xam nga wolof dafay wax ni suuf bu sutantee rek dañ koo jal mm-hmm. loolu li muy tekki mooy eh, ñun ñi nekk ci mbay mi di ci yëgguntu nekk ay fonctionnaire de l'État. di liggéey ci agriculture. Eh, suñu yeneen moroom yi boo jëlee tey magistrat bi bi mu jàngee ba am bac. dafa dem université jàng droit choisir ni moom àttekat lay doon. Mhm. mu def concours dem ñu former ko mu nekk magistrat. Mhm. médecin bi dafa am bac choisir ni moom faj lay def bi mu demee faculté de médecine. Mhm. jàng fa doon docteur ñun ñu jàng ñun ñu choisir tànn ni ñun agronome la ñuy doon. wala planificateur la ñuy doon te agriculture la ñuy liggéeyee. donc kon ñun ñëpp ñoo yem ci ak ak mhm. yelef effectivement waaye li ñu jaaxal mooy ni agriculture mhm. mooy seul travailleur boo xamante ne ci fonction publique amul benn indemnité tey boo jëlee médecins yi am nañ indemnité mhm. boo jëlee les les magistrats am nañ indemnité mais tey jii wàllum indemnité est-ce que ça date depuis longtemps chez vous waaw moom foofu laay ñëw euh, léegi ñun Euh, amuñu benn indemnité. Mhm. te liggéeykatu agriculture. Mhm. mook médecin bi ñoo yam mook magistrat bi ñoo yem ndax lu tax tey mën nañ la affecté fépp fu leen neex ci Sénégal. Mhm. Matam Tamba Kolda Saraya Médina Yoro Foulah fu leen neex. parce que fonctionnaire de l'État nga. mais amoo indemnité de logement. lu doy wax. amoo benn indemnité de logement. léegi nag ñun suñu ñaxtu mën naa wax ni yàgg na. ndaxte mhm. bañ koy ñaxtu man mën naa wax ni est-ce que sax juddu na. Mhm. man mii di wax. léegi nag bi ñu demee ba nga xamante ni en 2009. Mhm. benn syndicat bu ñuy wax SDTS jëloon na revendication yooyu. porté ko ba à l'époque defoon nañ ci ay jéego yu am solo. waxtaan ci ak gouvernement bi waxtaan ci ak ministre de la fonction publique. waxtaan ci ak ministre des finances ba nga xamante ni tënkoon nañ sax këyit mm-hmm. ba ni ministre des finances kat jox leen indemnité bi mm-hmm. ak indemnité bi muy ñaari indemnité principalement mm-hmm. ñu koy wax indemnité de prise en charge agricole ak indemnité de technicité waaye tay ji fii may wax ak yow 2010 2021 gis nga sunu doyen yooyu porté woon combat boobu porté woon négociation yooyu fii may wax ak yow. Mhm. ñoom ñëpp retraité nañ. Mhm. amul aboutissement. te jotuñu benn indemnité. 2016 mhm. ñun nouvelle génération bi ñu ñëwaat. tegaat sur la table. un nouveau syndicat. pour kat comme ñee daanaka ñoom retraité nañ ñu ëpp ci ñoom. ñu ni ñun ndaw yi kat li daloon suñuy ndijaay. dal suñuy maam dal suñuy papa du dal. comme ñun. agriculture lañ am. Mhm. mënuñoo dem feneen dañuy taxawal syndicat ñu taxawal syndicat di xeex. Mhm. di xeex ba Pape Ablaye sekk jaar fi. Mhm. mooy ki nga xamante ni moom la professeur Moussa Baldé wuutu ci ministère agriculture. bi mu fi jaaree moom it def ay digge yu tooy xepp. dig ñu fi sax ay terrain. fu ñuy wax dàgg xol ba fële ca ginnaaw. jam euh, mais terrain yooyu. Mhm. ba fi may waxee nii agent yi commencé woon nañ sax di cotiser. Mhm. dañ leen delloo seeni cotisation terrain yooyu France daal fi dem dara amu ci. Mhm. kon daal ci gàttal promesse bu ñu leen mënti wax dara amu ci. Moussa Balde dara amu ci. Moussa Balde aussi ñëw. bi mu ñëwee teg na benn commission. ñu liggéey ci indemnité ba tënk. ñeenti indemnité indemnité de prise en charge agricole. indemnité de technicité. indemnité de logement boo xamante ni moom ci jëmu boppam ci làmmiñam moo ñu wax ni son excellence. Mhm. le président de la République nee na ñun. Mhm. léegi désormais travailleur agriculture. Mhm. dañuy am indemnité de logement. ñu boole ko ci muy ñett. li ñuy wax indemnité de responsabilité particulière ñu gis ni boobu fii suñu morom yi di amee ay deux cent mille ñun soixante dix mille lañ fa am. ngeen fay am ñu ni nañ ko rehausser maanaam ñu ñu équilibré ko. boole ko ci. ñu jël ba badaaxal bi jébbal ko. Mhm. mu jël kayit googu jébbal ko son homologue des finance mhm. mu ni ko toog leen mu ni ñu toog leen xaar. toog leen xaar toog leen xaar. Mhm. maanaam lañ waxoon ñun suñuy maam en 2009. ñu toog di ko xaar ba retraité. loolu lañ ñu waxaat fi mu toll nii. te yéen bëggoo leen toog ba retraité. xalaatuñu ko. léegi nag bi ñu lànkee. li am nag moo doy waar.

parce que gëm nañ ni bu àggoon na mu war a àggee ci moom. Mhm. danañ ko def léegi nak li ñu jaaxal moy mhm. président la République pour terminer waxtu bi jeex na voilà pour terminer. Mhm. président la République da fay jël ay décision manam day joxe ay instruction jëwrinam yi maanaam ministre yi xam ne ñoo wara jëmmal instruction yoy di def leneen. parce que moom dafa wax ni nañ ko andil ay proposition pour que suñuy jafé jafé mu andi ci ay safara mais ministre mom deful loolu xam nga lan la def. dafa jël ñi nga xamante ne ñoo ñoo ŋànk syndicat bi. Mm-hmm. kenn ki mu affecté ko Tamba. Mm-hmm. kenn ki mu affecté ko Kédougou. Mm-hmm. kenn ki Sédhiou. kenn ki maatam ba ci man mi toog. mu affecté ma DER DERu Dakar foo xamante ni man soxlawuñu ma. fa lañ la yóbbu. waaw soxlawuñu ma mooy demal toogi daal demal tëddi nelaw yi. parce que kon yow loo fay def ni mooy demal tëddi nelaw yi. li ñuy wax mettre la au frigo. mooy terme boobu maanaam yow soxlawuñu la demal toogi loolu nag. lañ ne jekkul jaar bi mujj nag mooy bi ma doon ju sànq. mooy jël ay travailleurs yoo xamante ni dañoo am droit de grève. Mhm. nga réquisitionné la réquisitionné leen. Mhm. jaarale ko ci gouverneur yi loolu nag. duñu ko nangu tey. Mhm. duñu ko nangu ëllëg. am nañ yaakaar ne njiitu réew mi euh, jot na li nga xamante ni mooy euh, message bi doon na message bu am solo li ñuy wax saa su nekk rek euh, ku ci nekk ca domaine ba nga yëngu yaakaar naa ne boo toogul wax kenn du la dégg bay comprendre te tey révélation yi nga xamante ne ko Mor jour def na ko doon na loo xamante ne jéggi na doyo lool lool lool ci wàllum agriculture à la fin sax mën nañu wax Sénégal dañuy dem sax ba nit ñi bari dañ leen di fàtte comme sànq say njëlbeen yaa ngi naan journaliste yi nañuy faral di gëstu ci wàllum agriculture waaye Sénégal nag moo demee noonu à chaque fois fois faw nga génn wax nit ñi euh, mëna la déglu dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo c'était un plaisir. waaw di di la gërëm. Mhm. di la sant ci dalal bi ñu dalal. Mhm. Euh, bëggoon nañ mu gëna a yaatu. xam mhm. dinañ amaat. yoon yamul ci benn dinañ defaat beneen émission bo xamante c'est en direct incha allah merci beaucoup xamna bobu sax moo ñu gën dinañ amaat. beneen opportunité. incha pour wax ci euh, suñu plan d'action. muy gàllankoor bi nga xamante ni tey gàllankoor nañ ko. Mhm. mbay mi ci wàllu semence yi nga xamante ni fa lañ toll nii. Mhm. muy séddale jiw. Mhm. te ñu wax ko ñu bañ ko wax Sénégal tey am na jafe-jafe yu garaaw a garaaw ci wàllu séddale jiw. Euh, xam naa ni bu ñu yàlla mayee kattan. incha allah dinañ ñëwaat fii leeral. mbirum semence. parce que dafa nekk lu sérieux loo xamante ni. loi moo ko tënk te loi bobu dañ ko harmoniser sax au niveau de la CDAO mhm. te ministre bi ak ñimu andal ñu koy jalgati jalgati bu doy war bu doy war mhm. parce que def nañ ay mise en place ci yenn gox Sénégal mhm. yo xamante amul li ñuy wax bulletin d'analyse bu wane ni semence bi semence certifiée la amul li ñuy wax vignette macha allah loolu nag lu garaaw a la di la sante rek di la gërëm merci beaucoup di sante vraiment travail yi nga xamanteni ni jambar lañ nek ministère de l'agriculture di len ñaan ñu muñ ndaxte xam ni li ñuy dund metti na trop trop trop trop waaye nag euh, xeex rek. moo ñuy tàggaleek lii nga xamante ni injustice la bu ñuy dund depuis 1960. macha allah di la euh, remercier encore une fois. di sant mbokku internet yëpp. Mhm. di leen sant leen gërëm. Mhm.